Fatou Camara yow journaliste gambien nga euh, ñu ngi lay nuyu. Euh, di wax rek jërëjëf euh, fay naa leen waa Sénégal di kontaan seen liggéey waaw gis nañ ni tey Gambie bi fi Adama Barrow toogee léegi def na at te yow gis nañ ni seen temps élection bi bokkoon nga ci ñi nga xam ne dañ doon xeex pour démocratie ñëwaat Gambie. tey at boobu Adama war a toog ni mooy bés bi nga xam ne biñ sànnee woon carte maanaam bi si December la woon so the second mooy bis bi nga xam ne si lañ compté woon results yi di wax ne euh, Yaya Jammeh daan bi euh, Adama Barrow euh, moom la Gambie ni tànn. Uh, bis boobu noonu uh, moo ñëw at moo del si nii mu am at uh, loolu la màggal bi la gars yi doon màggal foofu Gambia pour wane ne one la bi Gambia joxee gannaaw dictatorship di li nga xam ne ba fa nekkee woon kenn woon wax ku wax ñoo xam ne rey nañ leen am na si ñoo xam ne tëj nañ leen ay jigéen ay xale ay mag lépp kon loolu la doon firndeel di wane ne one year after Yaya Euh, mooy December the first ak the second. Mm-hmm. léegi ñoom foofu naka lañ ko defee fête bi naka lañ ko doon passé lan lañ fa def. Euh, gay amoon nañ event buffer zone foofu Tallinding euh, fii président Adama Barrow demoon mu tombé tamit muy loncaale di li ngeen di wax lancé affaire yi benn youth organisation youth group boo xam ne ñoom tamit ñu ko tuddee président Adama Barrow. Euh, loolu la gars yi loncoon foofu si bés boobu ñoom ñëpp tasee woon nañ bova zone di ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk ci coalition bi euh, ki nga xam ne mooy ministre intérieur woon di Mai Fatty nga xam ne daaxoon nañ ko moom itamit sax demoon na teewee na woon bés bi euh, ñoom ñu dal di delloo si seen xel bés boobu nga xam ne bi yaay jëme daanu woon élection ñu ñëwaat am na ay musique yu fa am ñoom Jaliba Kuyateh tegoon nañ fa ñu mel ni ñoom Tata Dinding Gambian musiciens yi bari woon nañ fa jëlee nañ ay nit daal si fu nekk Eh, si gox bu nekk eh, Gambia si dex gi si village yi fu nekk nit ñi jógee woon nañ fa dal di ñëw eh, pour ñëw fête bés bu mag bii nii ak président Adama Barrow ak ñi mu àndal ci cabinet hmm. ñuy ñëw sax ci ci at bi nga xam ne Adama Barrow def na ko Gambie. ñu bëri dañ doon dañ doon wax ni Adama Barrow nit ku nit ku amul amul benn laay boo xam ne a Jammeh amoon na ko après ñu gis ni. Hmm. mu dàq may faati. ministère de ministère de l' intérieur. yow tey foofu ban jàngat ban jàngat nga sax nga ci njëkkoon am boobu est-ce que moom loolu bett na la wala bettul. dëgg la bu Adama Barrow ñëwee nit ñu ngi wax ne waaw parce que nga fi ñu jógee ñu ngi jógee si dictatorship ñu ngi jógee si koo xam ne nit ñi dañoo pare pour def tubaski wala def korité bu taxaw ne kenn du fi julli euh, ñu ñoo am ni koo xam ne du wax dara dafa noppi xëy na euh, pour waxtaan ak media bi sax dafa wax ne euh, chaque every Euh, ñaari yoon rek lay wax maanaam every six months lay wax loolu yëpp mu taxoon nit ñi ne ah kii de dafa mel ni moom dafa gën a euh, soft ak yooyu mu jaaxaloon ni ñun ñëpp a ngi wax ne kii du dee wax ak nit ñi duy wax ñu jékki-jékki rek ñoo gis koo xam ne mu daxamay faaki bi nga xam ne moom ak moom dañ euh, jegeñante woon parce que boo seetee bi ECOWAS doon génnee Adama Barrow biir Gambia doon ko doon yóbbu ba mujjee ñëw Sénégal ñëpp gis nañ ne bi mu doon ñëw may faaki la àndaloon Euh, soo loolu yëpp moo tax bi mu génnee may mu jaaxaloon nit yi nit ñi ne ah kon de fu mu nekk mel ni Adama Barrow fu mu ne mu ngi am fit euh, parce que affaire loo xam ne boo demee ba toog nekk fa am na yenn décision yoo xam ne euh, di nga ko jël la ko jëlal di nga jël décision yoo xam ne dina neex nit ñi di nga jël décision yoo xam ne dina naxari nit ñi waaye li nga xam ne loolu la nit ñi expect pour nga jiital mooy intérêt si dëkk bi waxta anything loo xam ne yow lu lay jàppale la wala lu lay def pour yow nga strong fi nga taxaw waaye dafa war a nekk loo xam ne mooy nekk si intérêt si dëkk bi soo bi mu génnee woon may jaaxaloon na nit ñi ba léegi spéculation am na nit ñaa ngi wax lu nekk lan moo tax ñu génnee may fàtti uh, waaye uh, Adama Barrow government tam waxul dara parce que constitution bi may na ko moom as président mu a génnee uh, ku mu ku mu indi fal leen waaye daal nekk loo xam ne jaaxaloon na nit yi daan bi daal ne kii ak kii ñoom dañ close kenn mosul woon a foog ne dina ci am mu ñëw am li mu def mooy léegi. ñi nekk si gouvernement bi te foogoon ne Adama Barrow léegi kii du wax dara dinañ gën a xam ne xaaral ñu bàyyi suñu xel parce que mun nañoo daax maa ngi doon euh, bi nga xam ne moom la fa yàlla wax bi mu ngi change because Africa moom government yi loolu moo si dee nekk parce que président bi dafa am power bu bari so loolu dina tax ni ñu bari ñu koy toppa foog ñoom itamit ñu jéem a xaw a tagadaa parce que boo deful noonu di nga ragal foog ne xëy na kon na la génnee te ñoom dañ ragal génnee dàq rek lañ ragal. te léegi May Faty lan la wax ni moom loolu la ko Adama Barrow tuumaalee ba mu génn ci gouvernement bi. Euh, may Faty nag moom euh, génnoon dama si amoon ay moom waxu dara waaye dëkk bi na yenn affaire yoo xam ne dugalante na ko tuddee nañ ko si affaire euh, a koo xam ne dafa mel ni sax pour toog fi Adama Barrow yooyu noonu yëpp tuumal nañ ko ko wax na waaye May Faty génn na. Euh, ganaar bi ñu waxee woon ne euh, ñii di samlax ñi nga xam ne dañ dee def ay affaires yi passeport ak affaires yi ID card ak yooyu ñu ne ñooñu leen jëloon xaalis bu bari si projet euh, Gambie suñu ID card yi suñu passeport ñu leen xaalis bu bari ko may pour def jox ko ci lool moom mu jël seen contrat waaye may génn na wax ne wax boobu amul ci amul benn dëgg bu ci nekk wax ne képp koo xam ne am nga ci lu la wóor nga génne ko nga def di ko ko woon ñii di waa Semlex ñoom itamit ñu mujjee woon génn ne ñoom itamit joxuñ may fàtti dara ba léegi nit ñi xamuñ lan la waaye nit ñi di wax daal mooy xëy na am na yu lu mu def loo xam ne ci xaalis la am na ñuy wax tamit ne dafa mel ni ku bëgg a power trop dafa yàkkamti Adama Barrow génn ndax moom mu toog waaye ba tey wax bu leer bi kenn xamul lan la. waaw léegi tey ñu gis ni euh, dugal na léegi Habib Dramé comme mu nekk niw euh, ministre de l'intérieur kooku yow loo xam ci mm-hmm. moom. loo xam ci moom ak euh, ban kii la am ak Adama ban link la Habib euh, Habib Habib xam naa ko fa naa nekk na koo xam ne jàngaloon na euh, school bu kii nekkoon baro nekkoon jàngaloon na may faati bi fa génn nii mm. euh, moom fi mu ñëw nii te school boobu la Adama Baro nekkoon tamit muslim moom seen teacher la woon foofu Habib xam naa ne nekkoon na Gambia tourism xam naa ne tamit nekkoon na si transport office bi loolu yëpp xam naa ko waaye li nit ñi wax tey si dëkk bi ak si social media bi maa ngi koy follow mooy Habib amul benn background boo xam ne xëy na affaire yi loi bokk na ci wala affaire sécurité bokk na ci te ñu ngi wax ne dëkk bi fu mu toll nii fu nekk nii dafa nekk si very uh, sensitive uh, situation especially su ñëwee si sécurité uh, so dëkk bi fa naa ni ñi dañ fogoon ne ñu doon indil xam ne am naa background si affaire sécurité but again may tamit ñu ne jàng loo soo it naa loolu moom mooy li tax nit ñi bëggoon mu nekk koo xam ne am na background si affaire yi loi wala si affaire yi sécurité Euh, waaye fu mu nekk nii nag comme tey lañ ko indi ñu toog ñu seet euh, moom naka lay doxalee ñu may ko tuuti time nañ ko seet su fekkee ne tamit óor na ma su fa defutee lu baax Gambie dinañ jóg wax parce que fu mu nekk nii euh, kenn mënuñoo tere wax dama koy wax saa yu nekk ne liñ am nii di wax ñun kenn joxuñu ko Gambie ñun ñoo ko jox suñu bopp parce que ñoo ko xeex. léegi dinañ ñëwaat sax ci muslim school boobu ngay wax parce que fan yi am na ay coow yu fa am. te comme Habib fala fa nekkoon loolu dinañ ci ñëwaat mais léegi yow dama bëggoon nga hmm. ma benn feedback ci at yi nga xam ne Adama Barrow toog na fi yow tey. Hmm. en tant que nga ci am. Euh, mut na wan nekk na loo xam ne ba léegi si bari na moo ëpp sax li nga xam ne soo buggee wax ne lan lan lu euh, gars yi achieve foog naa li ñu njëkk wax mooy euh, challenge si am parce que léegi ba léegi courant. Euh, affaire yi euh, courant bi ak affaire ndox bi loolu nekk na loo xam ne euh, ba tey problème la courant du am ndox bi tamit dafay nekk problème waaye fu ne nawet ñu ngi génn di wax ne ñu liggéey ñu ne fu mu nekk du ne tam mooy mooy ni gars yi nga xam ne ñooy liggéey ak ñoom nit ñaa ngi wax ne népotisme bari na fa di li nga xam ne sa mbokk ngay jël sa famille ñooñu rek ngay jël te kenn gisul benn liggéey boo xam ne. dinañ toog nag di ko advertise génnee ko ne government di Gambie parce que government bi pour ñëpp nga génn ne am na yenn liggéey yu am ana xale yi jàngay xale yi jógee jeexal di école Gambie ni dañ koy def seen bopp dañuy séedoo daal euh, loolu nekk na loo xam ne euh, jaaxal na nit yi euh, te kenn ñemewut a wax ngir boo ngaa ngi wax sax ñu ne waa xëy na ñoom dañ bugg liggéey joxuñ leen moo tax waaye du loolu parce que am na ñoo xam ne mën nañoo demal seen bopp si business waaye am na si dëkk bi euh, ñu fa euh, a liggéey si boobu boo seetee tamit si euh, foreign foreign service bi tamit ñi fa nekk ñu ku nekk ne ñu ne xaaral ñëpp bokk ko fa ne tànn la ku nekk na ngay seet ku la jege sa sa xarit bu yàgg bi doon xeex xëy na ku nekkoon sa boor ñoo ngay jël nga indi leen ba nga xam ne sax nit ñu bari gisuñ seen bopp si wécci wécci bi surtout ñi nekk ci diaspora bi Euh, nekk na loo xam ne am na ñu jël si diaspora bi waaye ñi nga xam ne dañ am parti affiliation xam ne ñoo bokk parti euh, ñooñu leen jël waaye ñi nga xam ne ñu ñu ngi woon si diaspora bi xëy na bugga na parce que ku nekk boo xeexee xëy na xam ne dañ ko gis si sa dikka mu am noo ko bugg am si ay idea soo fa naa li doon gën a rafet mooy ñoom itamit ñu tijji bunte yi tuuti boole ci ñi nga xam ne ñoom ñoo doon xeex surtout ñu nekk ci diaspora bi euh, am na fi ñoo xam ne sax duñ ñëw pare wuñ sax pour ñëw Gambie waaye at least ñu gis seen bopp si wécci wécci bi foog naa ne tamit am na solo loolu tamit gis nañ ne Adama Barrow government tamit defuñ ko euh, lu nit ñi di wax rek mooy xëj na tamit lu mu la si ees bi la nekk ba léegi nañ leen seetaan euh, leneen tam li nga xam ne euh, métti na ci mooy li nga xam ne bari na Afrika te Adama Barrow bi ma gisawante woon ak moom wax naa ko ne ci bàyyi xel mooy affaire xeex. mooy loolu tamit bari na fa Gambie léegi boo demee ci maas gi bi ñibbee ah, li ñuy njëkk a sa tuumal la ne dangay wax a jàmme yooyu yëpp dañ koy def pour sorit la xam nga yooyu yëpp tamit nekk na loo xam ne bari na fa trop xool nit rek tuumal ko lu rëy ah, pour nga mun ko jël randal ko ak nguur parce que boo ko seetee mun nga nekk sa ngay dunda di toppatoo yeneen Africa moom ku fa toog rek waaw lu muy bëgg rek bu jegee ñee président bu keneen ñëw dafay bëgg tëj bu tey tëj palanteer nekk soo yooyu noonu yëpp nekk loo xam ne ba waxtaanee Adama Barrow wax naa ko ko mën na ko nga bàyyi ci xel parce que boo gisee ñun suñu maas yi ñëpp ñu amoon problème ak Yaya Jammeh loolu moo taxoon parce que ay nit ñooy dem ñu xool la xëy na ñu ragal la foog ne boo ñëwee di nga jël seen liggéey ñu tuumal la so loolu tuumal moom bari na Gambia bu dee liggéey rek moo tax ñuy wax bari na ñi nga xam ne ñoom dañ ñoo bugg a kii bugg la ki leen a jege kii def la bañ te fekk sa bañu ko so yooyu noonu yëpp uh, uh, bari na soo fa naa loolu yëpp nekk na loo xam ne war nañ koo seet Adama Barrow tam in terms of communication nekkul di wax lu bari ak nit yi te loolu tam foog mu def ko parce que nit ñaa ko fa teg uh, nit ñi nag buñ la fa tegee Dingala nekk président moom si boppam wax na ko ne xalaatu ko woon ne dina ko mun a nekk euh, parce que moom liggéeyal nguur sax mu ne mosu ko woon xalaat waaye boo demee ba gis sa boppa si situation bi léegi fu mu nekk su dee daf lay guddi di xam war nga koo mun pour nga xam so kon ba léegi am nañ challenges yu baree baree baree baree bare yu am si dëkk boobu euh, nit ñi war nañoo wéy ci suñu attitude loolu tamit euh, nekk na loo xam ne important na waaye président bi surtout moom moom war naa xam ne ñëpp la fa nekkal boo nekkee président dëkk bi ñoo la teg ñi nekk sa boor léegi di daw ne la ñoo la bëgg a ñoom seen carte rek mënu la faa teg na xam ne élection beneen élection dafay ñëw te bu loolu ñëwee nit ñi time boobu tamit dinañ mën a décide lan lañ bëgg a def te loolu kenn du ci euh, euh, ma la koy waxee rek am nañ challenges yoo xam ne euh, war nañ ci seet bu baax gëstu ko bu baax léegi sax loolu bala ñuy gën a xuus ak ba pare ñëwaat yow si seen situation boo woolee hmm. courant bi Ah, gars yi dañu ne léegi dafa gën a jéggi dayoo xëy na bu fa yaay jàmmee nekkee sax daana coupé ay ñaari fan a ñett mais léegi mën na sax dem ay juróomi fan wala semaine ba nga xam ne tey ñi nga xam ne dañ fa yor liggéey bu nga xam ne courant moo koy dawal tey euh, gisatuñ sax seen bopp pour jéem a toog Gàmbi pour jéem faa liggéey hmm. waaw ah. waaw dafay dina dinay fay waaye dafay mel ni comme xëy na si jour bi xëy na dina fay ay dix heures euh, de temps façon yooyu noonu euh, yooyu lay nekk léegi-léegi dafay off lu yàgg euh, waaye bi ma doon jógee Gambie di di tukki nii maa ngi gis ne mu ngi doon tane parce que ñoom seen bopp waxoon nañu ne ñu cee liggéey lu bari man dama foog ne ay sabotage bokk na si man loolu laa ko gisee parce que saa yu nguur changé saa yu nguur ceeñee di gis ne am na ñeneen ñoo xam ne duñ kontaan te duñ ànd ak li nga xam ne mooy change bi. Uh, so waaye gay nawet bi ñu ngi koy seet bu baax te dëgg la bi fa jàmme nekkee melutoon ni mel nii loolu moo tax man ma foog ne sabotage tamit bokk na ci. Hmm. yow tam gis nañ la euh, bi Adama Barrow hmm. euh, invité nañ la ànd moom dem Sierra Leone def naa ak euh, Côte ma daf ma fekkoon ma fekkoon sa waaw léegi ñu gis leen waxtaan ngeen mais ñëpp dañ jàppoon ni tey moom bu toogee. Hmm. yow niñ la gisee nga xeexoon. jàppoon nañ ni comme mosoon nga tam nekk ci service communication yaay jàmme xëy na jàppoon nañ hmm. tam di nga duggaat même boo duggul foofu dina am foo mën a nekk lan moo waral yéen comme li ngay wax waa diaspora bi ba léegi gisagu leen seen bopp ci loolu lan moo tax euh, comme ni ma ko waxee rek xam nga change bu amee dafa am nit ñoo xam ne xëy na ñooy a ñëw ci kanam euh, xëy na ñoom luñ mun ñun munuñ ko parce que boo ko seetee Afrique lu bari euh, su président toogee dafa am ne dañuy daw eerlu kiram fanaan office am nekk fa di ko toppa am na ñoo xam ne nag mënuñ loolu parce que man chômage gi mënuma topp kenn euh, bu dee si liggéey la pour suma affaire dëkka boo gisee ma euh, a dem ma contribuer si nga yow tam mënuloo forcé na ko bàyyi force dama la bëgg euh, li ngay def rek mooy da ngay toog seetaan parce que façon yi gis nañ ko dëkk yu bari waaye mujj duñu mujj fenn ñi ngi indi seen boppa ci kanam di yàq sa xel si ñeneen ñi ñooy ñooy ñi nga xam ne xëy na ñoom ñoo yàkkamti ñoom la intérêt ikkati waaye man li taxoon ma doon yàq mooy suma dëkk te euh, wax dëgg yàlla waa Gambien yi ñoom kontaan nañ si ngir Gambie fu ma romb fu ma dem nit ñi dañuy daw ñëw ñaanal ma mag yi euh, photo wu lu ne soo kon man loolu moo ma gën a ñor euh, fu mu nekk nii ñun métti na sax pour suñu waxee parce que su ma toogee sax ne Adama Barrow tey lim solo ñu ne dama ko saaga fu mu nekk nii foofu lañ toll boo ngaa ngee wax sax ñu ne dama ko saaga. xëy na kon moom itam yooyu lañ koy wax ne ko kii daf lay saaga waaye man dofuma dina jàpp ma jël ay kilifa di ko saaga du ma saaga suma morom sax surtout kilifa ah, soo fu mu nekk yooyu yëpp moo ci am na tam la parce que ko faatu amoon na benn temps eh, la bañ eh, waaye ñu ne ndaje eh, li gën a am important mooy am nañ jàmm te chaine bi li nekk si history bukki loolu kenn mënu ko changer li nga xam ne moo nekk si history bi loolu kenn mënu ko wécci te di fat ne Gambien nit yi ñoom apprécier nañ diaspora bi ak ñu mel ni ñun nga xam ne moom moo gën am solo euh, li ci moom euh, ñu daan dem waaye ñun ñu ngi liggéey euh, ñun seen communication lañ nekk te liggéey bi moom taxawul ñu ngi liggéey bu baax a baax a baax macha allah. léegi gis nañ ne ni Adama Barrow fan yee ci ginnaaw am na ku génne woon benn dossier ba nga xam ne sax def naa jàlloon na yow si sa site ba ñuy wax ni mi ngi commencé. di def ni jàmme doon def parce que gis nañ ci benn jigéen boo xam ne Angleterre la nekkoon léegi dafa ñëw. Mm-hmm. Euh, daanaka ñu nommé ko ambassadrice. ñu ne fu Adama Barrow dem day ànd ak moom te bu demee da ko fay bàyyi pour mu mën ko doxal yenn soxlaam yi te ci dossier boobu dañoo wax ni ndaw si ci élection yi joxoon na Adama Barrow xaalis gis nañ itam jabaram soxnaam si euh, f ba am na kër yu mu commencé di tabax fajaara man yooyu yëpp. ak ñu nga commencé gis nañu tam am na benn benn frère am bu mu jox ay garde corps jox ko oto te ndaw soo tam naa sax ci oto yi yaay jaame doon dawal lañ koy jox tey Gambien yi bu ñu gisee loolu est-ce que tey du ñu rëccu li fi yaay jaame jóge euh, li ngay wax noonu man naa ko fu naa maa ngi ko gis si euh, freedom te euh, jigéen bi ngay wax noonu tamit xam naa ko mosoon naa wax ak moom ci téléphone Eh, wax na ma ne moom contribué na trop si yëfi xeex bi soo eh, eh, ak yooyu xëy na loolu moom moo tax Adama Barrow teg ko ci booram waaye comme lu ma wax rek mooy man du ma bëgg a wax si yooyu lu lu lu lu bari parce que na moom Barrow moom moo xam nekk seen diggante xaw ma ko lan la ko kooku di xaw ma ko waaye li may wax rek mooy na gën gaa yi gën a bàyyi seen xel parce que boo toogee tey commission bi nga xam ne moom moo fa am ñu ngi koy dégg every day fanaa yéen Sénégal sëy na koy follow li euh, nga xam ne fu xaalis yi duggoon lan lañ def loolu noonu yëpp mu ngi génn di ñëw te tamit euh, kenn xamul waaye électricité tam mun naa ñëwaat te waxuma ne euh, sax ñoom dañ def affaire yi loo xam ne dañ defagum lu aay waaye lu may wax rek mooy lu waay di def rek léegi li ci gën a rafet mooy nga gën a bàyyi sa xel wax leen tamit ne dëgg maa ngi koy dégg man tamit ñu ne doomam yi dem nañ jàng nañ Amérique nit ñaa ngi wax ne li doon xew si affaire yaay jàmme yooyoo ngi xew ba léegi yooyu tam maa ngi koy dégg man tamit Ah, waaye comme ni ma ko waxee rek euh, lu munti nekk rek mooy euh, na gars yi bàyyi parce que man bi ma demee Gambie nag digga digga wàññi naa euh, affaire yi toppali government bi def parce que dama ne nekk tam dafa am fu muy em fu mu nekk nii li ma liggéey maanaam mooy affaire yi PR jéem a gën a nekk si boor boobu daal lijjanti parce que government bi moom boo koy toppa du jeex every dañ see continuer foofu ngay nekk ba mag du jeex government bi dañuy ñëw di dem te saa dañuy def loo xam ne dana jaaxal Euh, léegi-léegi bu ojjantee dinaa dee génn ma tax ma wax waaye am na yeneen yoo xam ne léegi daal dama koy bàyyi daal borom ba ma concentré si yeneen. Hmm. léegi Fatou bu ñu ñëwee ci ministre bu bees bi Habib Dramé. Hmm. yaa ngi doon wax mi ngi jàngee Muslim High School. Hmm. xam nga fan yi gis nañ ci éducation bi am na problème. ba directeur bi euh, jeyte ne bu ñu dàqul. parce que dafa gis benn vidéo boo xam ne mi ngi woon ci net bi xale yi di fa fecc fecc bu xaw a doy wax ba mm. waaw ba directeur bi ne moom bu ñu dàqul xale yooyu ñoom seen bopp dañuy génn ci école tey est-ce que loolu bi mm. fi bi fi Yaya Jammeh nekkee xeetu scandale bu mel noonu daana fa am ak tey ban jàngat nga am ci mm. Yaya Jammeh bi mu fi nekkee dafay def góor yi jigéen ñi di bëre xaw ma ne dañ daan gis loolu ñaari jigéen di bëre loolu yëpp amoon kër yi laay léegi léegi tamit nga gis yee dafa sori féete yoo xam ne yow tamit ñun Afrique lañ dëkk Gambie gis jigéen am soo xale yi tamit lii lack of la dafay damay seetaan seen programme yi foofu Sénégal ma gis ko ngeen sabar moom bu neexee xam nga foofu lañ koy seetaanee nga gis euh, sabarkat bi dara xam nga yooyu gis nañ ko soo xale yi tamit lack of awareness la yi na xale bi seetaan na benn euh, benn vidéo online mu gis ñuy féetee noonu muy féetee noonu moom itamit mu dem def ko waxuma ne is something that is right waaye dama foog ne liñ gën a soxla fu mu nii ko ko ko loo xam ne moom xamul sa lu def teg ko nga ne ko lii nga def nii waruloo def lii lii nekk na loo xam ne yow pour sa age fu nga nekk nii fu nga toll mun naan sa xale la mun naan sa xamul dara waaye xam nga uh, I think loolu yëpp communication la. waaw et puis gis nañu itam yow uh, ñëwoon nga Sénégal. yaa ngi doon waxtaan ak ñoom Bouba Ndour ci ay yu ngeen bëggoon liggéey. Mhm. Euh, ba pare éventuellement loo xam ne bëggoon nga def Gambie ak yooyu yow sa mhm. euh, fan nga ci toll. waaw ñun si projet bi ba liggéey lu bari soo ko euh, li ñu bëgg a def mooy Sénégal ñoom xamuñ lu bari si Gambia waaye Gambie xam nañ Sénégal lu bari parce que li tax mooy Gambie ni Sénégalais TV leen di gën a seetaan. Ah, boo laajee Gambie ni ay député yi nekk Sénégal sax nañ la tuddal ñëpp nga laaj Sénégalais député yi nekk Gambie xëy na sax nañ leen xamuñ ñan lañ ah, soo ñun li tax ñuy jóg ah, maanaam buuba si projet boobu mooy pour indi Gambia si Sénégal indi Sénégal tamit Gambia dal di dëgëral Sénégalais ah, Sénégambia boobu noonu loolu moom moo tax ñu jóg ah, boo ko seetloo léegi am na ah, programme bi yeewu leen dafa am ko xam ne dañ koy ko Sénégal Dakar ne dool paa ñu ngi leen di won ñu ni tamit sabar yi ñu ngi koy dugal biir Sénégal seen programme yi so moom moo taxoon projet boobu jóg bi ma doon dem Gambia nag projet bi mu amoon in mind mooy dem def TV station amoon naa nit yoo xam ne ay investors lañ pare woon nañ euh, pour liggéey ak man euh, demoon nañ sax ne ma soo paree sax ñu jël xaalis yëpp dugal ko sa contact yooyu ngeen commencé waaye li xew mooy euh, bi ma demee Gambie ma xool situation bi dama foog ne télé fooguma dina fa dox bu baax te tamit bu dul loolu tamit boo seetee terrestrial TV mooy television station yi nit ñi di seetaan seen kër mu ngi dee nekk nii lu bari da ngay toog sa kër sa doo télé. Euh, ma xam ne àddina bi yëpp muy lu nekk di mujjee mooy social media si internet bi lay mujjee ma gis loolu euh, société bi kay mel ni Amérique fii fu mu nekk lu bari loolu na mun yaay Afrique tuuti waaye fii ba ay ay four years time di nga gis ne dina wàññeeku yëpp dafay ñëw social media euh, ma dal di wax ne xaaral ma xaar si projet boobu léegi léegi ma dama bëgg a am presence bu bari on social media ma dem Gambie nag ma xool ma gën a xam. bi ma nekkee woon fii maa ngi doon wax waaye fekk àgguma fa gisuma bu baax waaye ba ma àggee nag bu gisal suma boppa ah, ma dal di dellu si ma toog jël benn trois semaines ah, ma dal di eh, put suma projet bi tuddee na su ma demee rek si new year allah ah, mu dal di hmm. léegi Fatou yow ñu ngi lay remercier mais dinaa la posé tam beneen question boo xam ni euh, daaw jamono ji hmm. toogoon nañ fii man gars yi ne ma hmm. laajal Fatou ba xam am na borom kër fan nga toll ci loolu ba léegi góor ñi waaye nga borom kër nag tamit <laughs> yaa nga borom kër doo ko doo ko doo di ko ut. Hmm. Ah, bu jotee rek dafay yomb. Hmm. loolu bu jotee rek dafay yomba kon loolu dañ koy bàyyi eh, si loxo yàlla rek eh, eh, yàqamti wuñ alhamdulilah am nañ suñ doom yi ba pare ah, léegi li des rek mooy ñu liggéey fu ñu fekk rek ñu dal di jël daal. bu demee noonu mais baaru gaa yi ragal ndax ni ngay dégg ni ngay waxee parce que yaa ngi doon wax góor gu fit nga bëgg quoi. mbaa du ñoo gars yi loolu tax xam nga xam nga Afrique moom in general moom euh, góor yi moom jigéen bu strong moom su ma si jigéen bu dëgër bopp moom dañuy xaw a oytu waaye euh, mooy loolu rek waaye xam nga ne ñëpp amuñ am na ñoo xam ne tamit euh, ñu am fit lañ kon ñu ñaan rek comme ni ma ko waxee yàlla def jàmm rek ñun fu nekk nii ñu nekk ci liggéey bi te ñu man dama góob ne lu jot rek dafa yomb. thank you Fatou. ok thank you very much seen time.